ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati guy gi tamit pare bi saa kajoor amee la ko arrivé ko Fifty tamit la même chose ñu am yaakaar ci guy gi ni ëllëg fu nit egg ci géejawaay ci biir làmb rek ci loxoom lay nekk mhm. mais ñu gis carrière bi départ baax na trop mais dañ dem ci biir gis mu xaw a nekk ci ay tuuti ay jafe-jafe loolu noo ma ko mën a tekkilee waaw xam nga loolu moo moo espoor ñoo ànd mais. Mhm. aussi itam di xool fi ngay teg sa tànk dafa am solo. day am solo. Mhm. parce que mënu ma man mënu ma def benn carrière bi. Mhm. bañ naan yaa ngi ci VIP ak nekkoo ci VIP bi. waaw sa benn tànk ngi ci biir benn baa ngi ci biti. bon ngay dem di jël yenn combat yi. parce que combat yi mu jël yëpp man vraiment. man du du combat yo xamanteni dal du combat yu normal la du ñoon adversaire am dal hmm du combat yo xamanteni waron nako jël parce que moom la hmm. dal nako ci boyña wa dal nako ko ci Reug Reug. Hmm. mais nak boyña est-ce ni ko sa normal mu jël ko parce que boyña Niang na géej way am lu fi def. Hmm. am lu fi def defaat ko fi. mu nekk ci yoon di di ramper di ñew kon est-ce que guy kon combat nekul combat bu jaar à 100 mo boyña moom waaw peut-être sax boobu mo tané won waaw. peut-être sax boobu moo xawoon tane ak rëg-rëg. waaw kon combat ak rëg-rëg kon yéen àndoo leen comme comme comme na Saaka Joor. waaw bon pour mu bëree guy gi. day yomb. bon presque dara doxatu fi daal. Ah, day yomb waaw. Mhm. guy gi rëg rek kon àndoo leen si combat boobu waa yéen. non maanaam du woon du du man man du woon du man du woon yoon quoi. Mhm, du woon yoon jaadu. du woon yoon. Mhm. parce que comme yow xam nga ne adversaire bi kii war na la mën a daan. te li ngay liggéey ci làmb liggéeyeegu ko. Mhm. du ma la jël. Mhm. yow dem nga ba ay ama Sène ak ay ñoo ñëpp. ay Bombardier waaw dégg nga moom wax fi nii. waaw bëgg na bëreeg guy gi. waaw bëgg na bëreeg guy gi. Mhm. mais yow. waaw ndax ci yaram li waaw. am na foo bokk xaaral foofu. Hmm? xaaral. loolu moo yoonu làmb. mo loolu moo jaadu woon. waaw loolu moo jaadu woon. ñu gis combat bi bi mu ko jëlee daanaka lu ci bëri mën nañ ni pare parewu ko ci écrit bi. mi ngi ruqam wala mi ngi maas mi ngi ci géej gi di entraîner. Mm-hmm. ndax compa boobu nem ne ko combat capital ndax loolu lu jaadu woon la. ah xam nga boo xoolee. waaw champion yi ci kaw yëpp presque ñoom nooy léegi noonu la ñuy seen préparation yëpp noonu la. noonu la ñuy joobee noonu la mm-hmm. ñuy joobee ku ci jël combat presque ñu ciy dem seen écurie léegi bareetul. bareetul waaw. comment mag rëg-rëg ndax entrement bi jaar na yoon ndax liggéey na loo xam te war na ko mën a may ndam ak jël bi ni mu jeexee. man lan laa d'accordoon bu amee lu nekk ci yow waaw parce que làmb mm-hmm. bu amee lu nekk ci yow mais renvoyé la waaw yow nee nga da feebar mm-hmm. mais bul nëbb bul bu ko nëbb mm-hmm. yow am nga décérir ginnaaw sa sa am na problème mais renvoyé pourquoi pas renvoyé. renvoyé comme ñëpp. mais loolu course bi yow mii course bi di ko toggal siège. yëg nga ko benn avant wala. non non non. dala koo nëbb. man yëguma ko daf ma ko ndax lépp rek bëgg a. ndax bëgg bëre rek bëgg a bëre parce que aussi itam combat bi yàggoon na. Mhm. combat presque trois ans. trois ans waaw. ah. xam nga des fois ñoom dañuy bëgg a rek génn ci dem seeti leneen. Mhm. waaw. mu jeexee noonu. mu jeexee mu perte. digganteem ak rëg rëg. rëg rëg affaire bu métti ah. affaire bu bu bu bu bu métti ah. waaw mais nag delluwaat rek defarwaat rek liggéey. Uh-huh. parce que moom itam lu ko delloo si ci làmb. Uh-huh. génnul xaajul sax bay génn làmb. xaajul parce que boo xoolee guy gi. Uh-huh. li ko dese ci làmb. moo ëpp li mu bëre. moo ëpp li mu bëre mais am nga yaakaar ne guy gi war na mën a liggéeyaat ba li mu amoon ci làmb mu jël ko. bien sûr. bu baax sax. loolu lan moo koy maye. liggéey liggéey. entraîné tëju tëju sa rëqu liggéey wala ànd ak sa coach liggéey moo koy maye ak sa coach. liggéey. lekk lekk ba suur. récupéré te di récupéré waaw. bu ko defee ñëwaat. bu ko delloo sa dellusi dellusiwaat place am complètement. Uh-huh. sa diggante école yi Mor Faram naka la demee maman bi. waaw sant yàlla mais nag instant bi moom. Mm-hmm. kontaanuma si école de lutte Mor Faram. Mm, lu tax. parce que école bi bari na ay jaxasoo. ay jaxasoo. Mm-hmm. bon parce que amoon nañu benn président boo xamante ni mi ngi fi nekkoon. Mm-hmm. ñun sax faluñu ko woon Mor Faram moo ko faloon. xam nga bu ñu defoon en général président da ngay def assemblée générale. assemblée générale waaw. mais for Mor fara moo ko jëloon rek falal ko noonu boppam quoi. Mhm. mais mu ñëw ci école bi daal vraiment jaxase école bi complètement jaxase ko moom président bi waaw président bi jaxase école bi complètement ma jàppoon ni président daa war a doxal xool avancé merci beaucoup waaw président dafa war a doxal mhm. mais ñëw jaxase école bi bon te président aussi tam mhm. da ngay da ngay da ngay mën a jariñ école dara dëgg la au moins sax mbër mi am combat nga mën koo jëlal ñaari kaar. wala nga jëlal ko saaku ceeb. waaw ah, mais président boo nga xamante ne vraiment. Mhm. doy na waar. Mhm. Ah, ba pare bon ci loolu. Ah. xam nga. Mhm. daal fi ne daal suñu programme mooy. Euh, bu saison bi tëjee. ñu def assemblée générale. ñoo ngi waat beneen président. mais président bi fi nekk parti si la. non non non instant bi ñu toll nii. waaw moment bi ñu toll na moom ça moom doy na sëkk. Hmm. na dem rek. doyal ngeen ci yéen. doyal nañ ci sëkk quoi. mais gars yi ñun école de Mor Fadam. fi nekk. waaw doyal nañ ci moom. doyal nañ ci moom complètement na dem ñu wuti beneen président. Ah, mais est-ce que kii euh, nu mu tuddati sax euh, bi Djily Wade. waaw non Djily Wade ménagère rek ba xam est-ce que yéen ak moom ci yu mel noonu. parce que Djily moom ak Pathé ñoo àndan ci liñ doon def. ci liñ doon def. Ah. ñoom ñaari ñoo defoon benn bloc di def li ñuy def. Ah. léegi nag jili doomu ah. école bi la. doomu école bi la. kooku carte ménagère am boobu lu mu ci am. Hmm. yàlla na ko jig. na ko jig amiin. mais nag li ci def na ko bàyyi ak ñun. mu bàyyi ko yéen. na ko bàyyi ñun ñu seet nu ñu defaraate suñu école parce que école bi jaxasoo na. Ah, jëli woon naa ki nga xam te mooy Pape mbay communicateur traditionnel. Mm-hmm. te nekk ci géejawaay. Mm-hmm. waxoon na ci lu ci lu mel noonu mu ne kooku dafa bëgg a aakimu école bi. ne lépp moom la loolu la nga ko dëggal yow wala. waaw parce que man xam nga man lépp lu may dox rek ci àdduna ci gore laa koy dox. Mhm. gis nga man ñi ma doon àndal démb. Mhm. ak barki démb soo ñëwee fekk ma ak ñoom. Mhm. keneen ku ci dolleeku nag baax na. mais ki ñëw tey. waaw du tax ma bàyyi ñi ma da àndaloon. ñi ma da dëgg la. Pambaay loolu mu doon wax noonu. dafa ñëw tey. dafa nekk doon wax. waaw tey dafa ñëw. Hmm. waaw. Hmm. Euh, am na ñu ne ma. Ngelum école de Mor Fadam benn mbër la fa am muy guy gi. Mhm. bu su bëreewul moom du toog siège du ñëw ci école bi. <laughs> loolu da nga koy tegal loolu loolu amul. Oh, loolu ay waxu kii la rek loolu euh. parce que aussi. waaw respect dafa am solo. te guy gi dafa ma jox cër. am mhm. fu mu ma teg. Mhm, boo gisee aussi itam. may sonn gën a sonn ci may sonn ci moom. di mm-hmm. xaru ci moom à cent pour cent. Mm-hmm. am na fu mu ma teg foo nga xamante ne nii ah. mm-hmm. ku ma fa teg rek. ma ànd ak yow. nga ko ni mu la. téye ko ni mu ni mu waa ni mu ma téye. mais ay mbaytin. waaw Pambaay. Pambaay. ah. Eumeu Sène mais ñooñu ñëpp maa leen di toogal ba. guy gi. bébé guy gi. waaw ñooñu ñëpp maa leen di toogal banc. Mhm. ah. Mhm. amul ci kenn koo xamante dëgg xanaa xanaa temps yi passé na ne ni parce que temps yi man maa jël recul. ma jël recul toog sama kër. waa recul pour ma mooy li ma lay wax nii rek. mais tamit est-ce que jaarul waxtaan. avant avant assemblée bi. non euh, non waxtaan nañu temps yi passé. ba kale li ñuy kale. Mhm. bon bi ñu kale li ñu kale léegi assemblée général bi nag. xam nga li ñu mën a régler pour nga régler ko foog saison bi jeex. la. bu saison bi jeexee. Mhm. léegi li ñu bëgg a rocci lépp ak li ñu bëgg a defaraat yépp ñu dindiwaat ko. waaw mhm. kon daal am nga yaakaar si waxtaan boo leen dajee toog lépp li ngeen metti woon ci école bi mën ngeen ci amaat euh, lu neex. non ñu metti ci école bi moom mooy lenn rek. Mhm. moom moo ñu metti ci école bi. muy. muy ñaar ñu nekkoon ci école bi téye école bi di ko manipuler di ci def lu leen neex. muy président bi. muy président bi ak jiliwaat. ak ménagère bi ak ménagère bi. ñaar ñun daal ñoo leen neexul fi ñu toll ci école ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñoom daal mhm. ji li moom mhm. li ma la wax rek doomu école bi la waaw man dara méttiwuma ci moom de mhm. dul mu gis benn nit waaw bàyyi seen nitu démb kon daa gis président bi daw tafu ci moom écarté ñi ci des jéem a écarté ñi ci mënuñu écarté waaw jéem leen a écarté mais mënuñu écarté parce que école bi suñu école la ñun ñoo ko moom yéen ko moom waaw muy lu am solo loolu entre parenthèse la woon mais bu ñëwee ci combat Balla Gaye Gris Bordeaux en tant que technicien. Mhm. noo ma koy tojalee combat boobu noo gisee combat bi seen revanche. waaw combat bu am important la. Mhm. di xaar. waaw. te li ma gën a gis mooy pression bi yëpp ci Balla Gaye la nekk. la gën a diisee. Mhm. parce que bala am na lu mu war a defaraat. bari. Mm-hmm. yoo xam nga sax li may lay wax xam na lu mu war a defaraat lu bari parce que am na fu ko nit ñi di xaar mm-hmm. te dafa am bëre bu mu bëree Gris Bordeaux waaw victoire boobu mu am si Gris Bordeaux mm-hmm. victoire la ko mais victoire ko xaaruñu ko woon foofu daal victoire dàq na ko merci beaucoup mu jóge ci ñëw ci Bombardier nit ñi di ko xaar mu ñëw daanu kon kon am na fu ko nit ñi di xaar am na fu ko géejawaay di xaar waaw kon combat bobu liko ci war rek mu ñew hmm dan kiri Bordeaux avec manière. avec la manière. récupérer wat place am complètement. wa mhm. ah, man loolu la gis. ndax loolu dina nek lu yomb parce que giri Gris nek 3e Tigre face ba tey gars yi xaar encore te mom mu ñew confirmer deugal woné mhm. ñu bëre won Balla am ndam ci kawam. Mhm. giri di ñaan yalla combat bi taxaw pour mu jël revanche am ci Balla gay numéro 2 ak fi giri tolu ci lamb ndax tamit combat bi du métti trop trop trop ci Balla gay 2 ndax dina yomb ci moom daal. non xam nga xam nga instant bi ñu toll nii. waaw. man giri gëj naa gis ay sorteem gëj naa gis ay kiyam. Mm-hmm. mais xam naa ne Balla moom. Mm-hmm. bëgg na combat na combat bi. Mm-hmm. Balla. naa ni moom bëgg na combat bi giri nag gisuma ko dégguma ko fenn. mais xam naa ni moom it normalement war na bëgg combat bi. war na bëgg combat bi waaw. Uh-huh. loolu jàpp ni Balla moom la war a def ci làmb ji pour pour am ndam. lu mu war a liggéey wala lu mu war a moytu pour mën a am ndam. ñëw rek bëre. bëre mhm. moom daan combat bi. daan mhm. rek la war moo ko ci arrangé moo ko ci arrangé. te yeneen contrat mu ngi ci kanamam. waaw te yeneen mu war a bëre ak wara Niang. war a a bëre ak Eumeu Sène waaw. te dafa perte digganteem ak Gris Bordeaux. Mhm. de non digganteem ak euh, waaw. kon yow boo ko indi daal bëre rek nga koy sant loo. daan daal moom nu mu mën a def moom na daan Gris Bordeaux avec manière. Hmm. récupéré waat làmbam complètement waaw hmm. ah. bu ñu jàppantee bëre ñoom ñaar ku avantage wu. non kooku avantage su Balla Gaye la. avantage su Balla Gaye su Balla Gaye hmm. bu dee ci wàllu xeex bi nag. non xam nga xeex moom. baax na si làmb mais wut buntu la rek. waaw wut buntu la. te Gris Bordeaux.

pare rek. Mhm. gis nga làmb moom. pareel pare parce que mën nga ñëw mu yomb. ci génn mooy liggéey ba nga liggéey. waa liggéey bi nga liggéey mooy feeñ. mais soo liggéeyul. Mhm. su làmb ji diiree. Mhm. nga mbëkkante benn yoon ñaari yoon. da ngay joxe sa bopp. nga pare si waaw. Uh-huh, léegi ndax combat bi nii jàpp nga ne war na diire dina mel comme combat bu njëkkoon ni meloon ci diire gi mu diire. bëre bi ñu bëre ñu naan temps bi ñu bëre. non bii paa yaakaaruma ko. Hmm, yaakaaroo non non. Hmm, am nga yaakaar ni buñ dee prip non bi pa yaakaaruma même pas 5 minutes mu jeex. waaw même pas 5 minutes dafa wara jeex hmm waaw. même pas 5 minutes bu jappanté mu jeex wala suñu xexé mu jeex. non dama ragal dañuy bëré ah. hmm séntu wo ci kaw. non kaw amu ci. mun ci am. non non. hmm jappanté bëré mo koy jeexal <laughs> jappanté bëré mo koy jeexal lamb jooju amul kaw hmm non non. bala loo koy yeb ak loo koy yóbbu loo koy yóbbante. ah bala xam nga man géejawaay la bokk. ba géejawaay nga bokk wa <laughs> moom lu ma koy yabee ma lu ma koy wax moom. Uh-huh. waaw loolu moom dama koy def secret. secret waaw. koy uh-huh. woo wala ma uh-huh. dem entraînement am. wax ko li ma koy wax. wax ko waxee ci télévision bi. Mm. bu ko waa Fass déggee wala waa Gris Bordeaux dégg ko. dañ koy préparé dañ koy préparé loolu ngay bañ. loolu ngay bañ <laughs> yi mi ngi jugaat ak 200 mm-hmm. cent pour cent géejawaay bi dafa mel doxatul de. ah mais cent pour cent géejawaay dafa war a dox. Mm-hmm. ñoom lañ ko jëlee. ko jëlee géejawaay moo njëkk a commencé. def cent pour cent cent pour cent mm-hmm. ku ko roy rek ñoom nga ko jëlee mm-hmm. kon cent pour cent bu Géejawaay warul des ginnaaw des ginnaaw te desul ginnaaw nag parce que ñoom ñëpp vraiment ñu ngi demlante ñu ngi jàppalante. mais est-ce que jàppalante bi war na à 100 pour cent ñu ngi koy gis à 100 pour cent comme ni ñu gisee Eumeu Sène Boy Niang Ama Baldé di entraînement di contact di contact parcelle Modou Lo ñoom Papa Sow ñëpp di anti contact mais gisuñu ko ci ci ci ci géejawaay. même buñ ko deful de mi ngi ci ruxam Balla Gaye loolu moo war a nekk. Mhm. parce que loolu lañ njëkkee woon. Mhm. au départ. Mhm. bu guy ci amee combat Balla Gaye nga fa Lac de Guiers nga fa Sa Thiès nga fa open press noonu tout ça. même buñ ko deful ñoom war dañ ko war a def. su Lac de Guiers amee ñu jàppale ko su Balla amee ñu jàppale ko. su guy gi amee jàppale ko su Sa Thiès amee ñu jàppale ko. yeneen booy yi ndaw yi topp seen mhm. su ñu amee ñu ñëw taxawu leen. Mhm. jàppale leen. Mhm. su bis baa ñu ëmb leen yóbbu leen. parce que seen rakk lañu aussi. waaw loolu daf ci am solo seen rakk yi bu ñu amee combat. ñu ëmb leen préparé ñoom ëmb leen yóbbu leen stade taxaw. ñu leen di gis. loolu dafa am lu muy def ci ñoom. ñu muy yokk ci ñoom waaw am na solo. loo bëggoon wax talaaju ma la ko amul. waaw man de presque man. dafa mel ni li ma bëggoon wax nii. waaw. waaw mel ni wax naa ko de. surtout ma wax sama école de lutte bi. ci bi en tout ñor na la à 100 pour cent. à 100 pour cent. Mhm. daf ma ñor parce que mu jëpp sa mu réer. loolu gàcce la. Mhm. Mor Fadam. Mhm. même bi muy nekk fii. waaw même mu fi nekk Mor Fadam dina toog deux mois nu jàll école ba. soo ko waxee mun la ngay lu ma nga fa. ngay lu nga fa. kon fi mu war di nekk man la. kon bu fi nekkul aussi ah man la. kon looloo tax. man luma man ci école de mon mon Faram pour mu jëm kanam. dina ko def parce que jëp su mu reer lolu gatché la. Mhm. ndax Modou lim créé ay champion créé ay ndanan ak nim mel ci lamu baye fi école melni mu nara démé demee naat nax saa ndax lolu luñ ko waron fay la mais lolu lay lolu lay bañ hmm lolu lay bañ lo ñoñu nonu bëgg duggal école bi. Mhm. lolu lolu man ci lolu lay dox fi ni pour école bi delluwaat wat famu nekkon melni ni même moment bi mi ñu ñun ñoo ngi waxtaan ak autorité géejawaay yi. Mhm. pour ñu jàpp ñu ci école bi ñu am espace. wala mën a entraîner bu baax bu ñuy entraîner. Mhm. ñu jàpp parce que sport boo gis soutien la. dëgg la sport boo amul soutien doo dem. Mhm. doo dem waaw. te ñoom aussi ñi ñu war a mën a jàppale ci lañ bokk. ku mel ni Modou Gueye. Modou Gueye fii. yaa ngi dégg. temps yëpp ñu ngi waxtaan ak moom. pour mu jàppale ñu ci école bi. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak mhm. Ah? Mhm. kon daal man vraiment maa ngi tàllal ñëpp loxo. pour ñu ñëw jàppale ñu ci école de lutte Modou Faram ñi nga xamante ne yéen journalistes yi. presque. Euh, fu mu dem wala mbër fu mu dem wala leneen fu mu dem. yéen yéen ngi ci ginnaawam. dëgg kon yéen dañ leen tàllal loxo. des fois ngeen ñëw taxaw gëstu école bi lan fan la toll ak fan la nekk waaw solo kontaan naa baax a baax président Guelum jërëjëf merci beaucoup ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati kam